dalli nag jàmm ci leeral tv leeral point net tey jii ñu ngi daal di xëy ci xëtëm gu njëkk gannaaw rek daa bala scandale gi nga xamante ne xew na fële te dalal jàmm hôpital dalal jàmm ñu daal di xam ne ci lu toll rekk daal ci 76 patients ñàkk nañ ci seen bakkan ndax seen rajo gu paan loolu nag daal nekk lu metti lool ñi nga xamante ne daanaka ñoo séq mbir ma waaye tamit gannaaw rek ñi ñu daal di waxee machine bi kat pan na ci lu toll ci ñaar jàpp ñetti weer boobu ba tey kenn ci ñoom deful ab rajo tamit lu ci gën a yéeme mooy patient yi nga xamante ne daanaka ñu ngi fa ci laaj rek da naan mënoo defee feneen ndax ñoom ci seen bopp dañ leen wax ne xëy na rajo bi tey mu pare wala suba tey ak suba tasu ne rek daal mbir mi di gën a tëgatémbe waaye tamit ñuy xam ne machine gi kat daal war nañ ko saafaraanu bu gën a gaawee ndax ay bakkan rek ñu ngi cay raay di rot ci lu toll ci 76 personnes ñàkk na ci seen bakkan lu ñe rek daal ah, ci wàllub l'accident ngi lee président de la république gannaaw rek daal conseil des ministres gi mu daal di amal naka biik rek li mu daal di xamle muy kaful réewul ci li nga xamante moom mooy mesure yi lee te tamit mesure yi nga xamante jël nañ ko ngir di appliquer du mu gën a gaawee am na ay mesures yoo xamante naka tey jii itamit lay entrer en vigueur man lañ koy daal di appliquer yeneen kat 15 jours lañ leen accident bi nga xamante ne xew na sa Sikilo ba tey jii am na itamit keneen ko ci daal di yokk maanaam 41 morts fu mu ne nii fa lay di toll waaye tamit ki nga xamante ne moo ci ñàkk bakkanam naka biig rek daal moom kenn xamul turam waaye tamit identité moom fu mu ne nii ba tey jii dañ koy daal di laam-laame ndax kenn xamu ko mesure yi nga xamante ne jël nañ ko ba tey jii rek daal ñenn ñi tamit taxaw temm ne ñoom ànduñu ci waaye tamit transporteurs yi nee nañ bu fekkee rek daal yenn yi maanaam oyoful ci ñoom ñoom kat dinañ dem ci grève générale wala sax daal yokkuti ab rek daal moo ñeel ca ndogal yooye ñuy daal di xam ne rek daal fu mu ne nii itamit yokkub dund gi naam mu ngi fii waaye tamit leneen yokkaat na ca muy courant geeg li nga xamante ne moom mooy carburant ga ñoom ci seen bopp itamit gisuñ ci seen bopp muy transporteur ya ñenn ñi itamit daal di xëyee naan kat Macky fu mu ne nii dafa nekk rek daal ci guddi gu bët setul ndax mu ngi wax ci wàññi ki dund gi te fu mu ne nii rek daal électricité ak carburant fu ne nii yokku na waaye tamit lu Mansour Faye daal di addu ca loola muy rek li nga xamante ne moom mooy carburant gile lu tax muy yokk waaye tamit muy de niveau mondial moom mënta wàññeeku tànk rek li nga xamante ne moom mooy pétrole gile wàññeekuwul ca loola rek daal la ñuy daal di desandi ñuy daal di xamle itamit lu ñeel li nga xamante mooy biophare gi ni mel muy biophare

a baax li nga xamante ne moom mooy mesures yi la jël nañ ko ca kenn waxul ci wàllu corruption maanaam ger gi la kenn waxu ko ca ca rek daal ñuy daal di xam ne gannaaw ab conseil interministériel pour la sécurité routière bi nga xamante ni amoon na naka altine ji jàll rek daal ngir ab 22 mesures nga xamante jël nañ ko ca Guy Marius Sagna taxaw na ci boppam moom nee na absence corruption yi nga xamante rek daal gis nañ ko ci yoonu yii lee ba tey kenn ngaangu ca tey tamit bu fekkee rek daal defu ñu ko lu wàllu rek daal li nga xamante ne moom mooy nemmeeku tuux bu Pastef gannaaw daal gi ñu daal di récolté tuju toll ci 3 millions fële ca Podor fi ñuy woowee titre foncier bu Macky Sall naka noona Ousmane Sonko muy leader Pastef gi xaar nañ ko rek daal fële ca Podor ci fan yile gannaaw rek daal ci nemmeeku tur bi nga xamante daf koy daal di def waaye ñi nga xamante ñoo fa nekk comme ay dajale nañ rek daal tuju toll ci 3 millions ngir loola ba tey jii rek daal ñuy desandi ci wàllub rek kunkande gi ni anami njublak ak ni ni mel fu mu ne nii tëj nañ ko ci lu toll ci 6 mois prison ferme ca loola itam sani ba tey jii ci l'accident yi muy accident tragique bu xew Thiès Tiwaawan foofu nag am na ci lu toll ci juróomi doomu aadama yi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan kon nag ñuy daal di waxani ba tey jii yoon gi wóorul ak yeneeni mbir yi nga xamante ne daal daf tey daal di xew am na ay loi yoo xamante ne tey jii lay dugg en vigueur waaye tamit ñuy daal di yi nga xamante ne jël nañ ko gi ne foowu ci kafu ca kon nag daal appliqué comme ni mu ko waree mu nekkoon li ci gën a fës ci leral point net